assemblée bi amuloo fa majorité xam nga sànq yaa ngi koy wax boo fa amulee majorité opposition bi bu la fa jiitoo ëppale la fa doole kon opposition bi moo lay dicté fi ngay jaar te su boobaa yow yoon bi nga gis wala yoon bi nga bëgg a jaar. doo ko mën a doxal doo mën a doxal. te yow yoon bi nga gis mooy projet souverainiste looloo tax constitution bi. jox président. possibilité may ko possibilité. bu ab assemblée juddoo ba am ñaari at. mu disul moo am cëggal guyam bu dee assemblée bi doy na mën mu ne doy na ko bu ko doyulee. mu tas ko ba affaire ne tous tas. yow loolu gis da ko a tas xoola coow li muy bëri bëri bëri bëri bëri. egg guñ fu ñu ko war a tasee. ñoom li ñuy xaar ci ñoom mooy élégance républicain mooy. tey réew mi. fii ñu toll ci ay urgence am na lu ñu soxla. Mm-hmm. ñu xaw a fàtte un peu les clivages politiques. jublu ci mbir moomu. jàpp ni ñun am na taxawaay boo xam ne bu ñu ko amee askan wi dina jàpp ni ñun ñi dañoo ñàkk ñànki wala dañoo ñëw pour xëpp ci cere ji suuf. Mm-hmm. pour man foofu moo doon lañ leen doon xaar ci grandeur. mais bu ñu duggee ci mbir moo xamante ni dañuy indi benn crise mm-hmm. crise boo xam ni yow booy wequ wala ngay fettaxu yàgg-yàgg fii nga jëm. kon nañ ko rafetal. mooy ñu tas ko. tas bi moom du ñàkk tas il faut ñu tas ko nag. parce que yi fi amoon nii. ba pare balaa bu bu tas amee sax nañ ko war a réformer. d' accord xool nu ñuy tabbee député. ak yan façon député lañ war a am ak ban taxawaay lañ war a am. oui Jibril dinañ ko ci yow tamit ñu yegg ci tas ko. mais li ñu xañ tey sànq yaa ngi ko doon junj ba ma dinaa ci ñëw mooy débat d' orientation bi nga jàpp ni dafa am solo ndax dina am euh, dinañu may benn lisibilité. ci lu ñu jëm ci budget bi. je je suis je, je veux dire juste c'est un calendrier républicain. Hmm. pour pour la mise en œuvre euh, pour donc euh, l'élaboration budget du budget du Sénégal euh, parce que ñoom ñooy joxe orientation président euh, le président day ñëw joxe sa vision son orientation politique ak un peu un petit ay cadrage. Oui. parce que on a des documents qu'on appelle documents pluriannuels documents de programmation pluriannuelle des dépenses. y a un document de programmation budgétaire du Sénégal qui regroupe l'ensemble des DPPD. Les DPPD, c'est des programme sur trois ans qui sont glissants. C'est-à-dire qu'on a fait des cadrages, nee nañu vingt 26 25 26 lii la ñu soxla ci alal Sénégal loolu la na ko ba pare tey jii ñoom bu ñu ñëwee dañuy jël rek loolu xoolaat ñoom seen orientation yu ñu ci bëgg dugal ñu dugal ko ci. Hmm. pour que député itam déglu leen. ne leen ah am na loo leen bàyyi parce que pourquoi ñu def ko. dañu bañ président ñëw rek indivision am bu ñu def session budgétaire bi ministre yi ñëw di indi te député yi xamuñu woon. du ñu mën a en fait du am échange réellement donc débat d'orientation bi day tax euh, exécutif bu ñëwee joxe orientation député yi yokk ci càmbar ko amandé ko exécutif tam gis ne xëy na assemblée yokk na ko ay mbir mu dellu nag defar document budgétaire am pour ñëw nag pour ñu dem nag maintenant ci session budgétaire yi pour vote yi donc ce que je voulais dire Pape neex dëgg yàlla loolu la ñu xañ dama ne Sénégal dañu war a bàyyi de la politique politicienne j'ai dit que le premier ministre Ousmane Sonko grand Kaba wax na ko tout de suite aujourd'hui il a tellement d'urgence il y question yoo xam ne moom dafa war a communiquer avec les Sénégalais pour leur dire tey lii ak lii lii ak lii dara xëyul sotti pour que effectivement cet espoir reste et que même les gens qui étaient contre lui puissent dire mais waa ji bëgg na liggéey dañ ko war a jàppale donc bu dépassé cinquante quatre pour cent dem vers cinquante cinq cinquante six dama wax ne ci noonu la war a communiqué parce que ki yor caq du xeex ak ku yorul caq loolu benn la cest dire même su nekkoon ci dëgg moom war na am posture bi mais li ñuy wax fii. waxtaan ci je suis désolé dama ne assemblée am na insuffisance wax naa ko nañ ko corriger mais correction bi mën na émaner de l' assemblée moo gën a jekk suñ ko deful yow nga nekk premier ministre war a def déclaration de politique générale l' article cinq de la constitution je suis désolé quand on me dit juridiquement non. juridiquement li ñu fi wax c'est pas a hmm. dama ne l'article cinquante de la constitution moo wax ne le premier ministre une fois nommé doit faire une déclaration de politique devant l'assemblée. mu dem sax ci beneen aléa ne alinéa ne la. Hmm. mën na demander sax vote de confiance. oui oui vote de confiance effectivement. ça veut dire. Hmm. la constitution est au-dessus. de la loi organique de l'assemblée nationale. donc le premier ministre ne peut pas. dérobé wu ci loolu on doit respecter la constitution de ce pays. léegi si la loi organique. Oui, oui. n'est la constitution est au-dessus de tout parce que parle de hiérarchisation des lois. il y a la loi constitutionnelle. les lois organiques les lois ordinaires les décrets les arrêtés. et les notes. les notes sont tirées sur les arrêtés un arrêté que qu'un préfet prend ou euh, un gouverneur ou un ministre et s'appuie sur un décret et ne peut pas être contraire à, à un décret un décret Macky Sall Diomaye tey bu jëloon décret bu contraire à une loi bu ñu ko attaqué ñu annuler décret bi am dund leen ko fi euh, un une loi ordinaire ne peut pas aller à l'encontre d'une loi organique une loi organique ne peut pas aller à l'encontre d'une loi constitutionnel or la loi constitutionnelle dans son article 55 moo ko consacré la question elle est réglée fondamentalement oui, même au si niveau de l'Assemblée même bu dee ci biir assemblée am na fu soxe am na vide juridique mais la loi gis nga en matière de loi ku jàng droit nag laay wax vide juridique amul gis nga le juge le juge dañ ko imposer quel que soit epsilon de juger parce que les sources de la loi c'est quoi euh, les sources du droit c'est quoi c'est la loi si le juge bi di pour juger bu amul loi xam nga ci lan lay sur les jurisprudences. est-ce que à l'Assemblée la loi organique est-ce que la loi organique je te répondrai pas oui ou non je ne vais pas te répondre c'est fi may waxee du daal parce que fi ngay waxee tout à l'heure tu m'as mel ngi def ne constitution bi méngoowul wala moo ëpp doole loi organique ñëpp xam nañ ni constitution bi moo ëpp doole loi organique constitution bi li mu wax premier ministre mënul fexe ba substituer wu ci li constitution bi wax parce que obligation la du dëgg waaye nangul ni règlement intérieur bu assemblée nationale waa benn ah, boo ko yaakaar ñoo ko modifié dindi ko lay tënk premier ministre ba ah, tànk loolu newu ci premier ministre su la neexee tàllal ba ca xajaay juge de la bàyyi ko oui allez-y non pas besoin d'exiger. non c'est un débat interactif. je non. c'est un débat interactif vous l'avez refusé tout à l'heure non je l'ai pas refusé parce que li ngay def. Oh, dafay prêter s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît man ñi may waxal nañ ma déglu. waaw dama ne wax leer na foofu. la loi constitutionnelle l'article cinquante cinq. cinquante cinq c'est clair. Ousmane donc ne peut pas. faire sa déclaration de politique générale. dans un c'est du loolu la war a wax bu mu war a am loolu benn hmm. ma lay xamal ne ñaar vide juridique munu ci am xam nga pourquoi supposons que damay supposer que loi bi waxu ci mais soxla ngay supposer Pape leer na non non mais damay aller plus loin solution bi mooy Pape damay wax sénégalais possibilité à l'Assemblée nationale ñu joxe ko man man damay jàngale dama may étudiant damay damay bëgg su may wax damay wax ak ñooñu. c' important ce que je dis. dama wax nañu supposé ay hypothèse laay dem. parce que loolu ñun loolu ñun ay scientifique lañ. damay jël hypothèse que constitution bi article cinquante cinq amul waxu ci. Hmm. mooy kenn waxu ci mais mu nekk une tradition c' est ça qu'on appelle la doctrine loo xam ne tradition la cest dikk Sénégal bi mu amee indépendance ba tey le premier ministre fait sa déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale supposons oo hmm. mais il a des pays ou il y yoo xam ne nekkul ci loi bi États-Unis ay mandat deux mandats nekkul ci seen loi nekkul seen loi constitutionnelle kenn mosul def plus de deux mandats nekkul ci Angleterre dama laaj leen seen constitution aada la merci beaucoup ça veut dire que traditionnellement ni ñu doon comporté woo premier ministre Sénégal yëpp assemblée lañ ko doon defee yow nga ne dama koy defee hôtel Méridien fan nga ko teg. tegoo ko waaye yemul rek wax loolu maintenant par contre. par contre. tëbul rek wax loolu. dama ne par contre. waaw assemblée nationale am na fu mu sooxee. Ah, mais jama la bëggoon responsabilité président Ousmane Sonko du PASTEF. Hmm. premier ministre bokkul ak responsabilité benn député. parce que moom moo yor tey nguur gi ñoom ñoo yor pouvoir. donc ñoom mënuñu xeex ak ku yorul dara du sax seen avantage du sax stratégie politiquement parlant dama ne c'est pas une stratégie. mais xeex la wala rappeler il a beaucoup de choses. xeex la wala fàttali leen il a ah. beaucoup de choses sur lesquelles il peut communiquer. Mm. et loo xam ne day baax ci régime am day baax ci Sénégal yi di ko déglu. mais ci Sénégal yi di ko gën a soutenir li may wax dama bëgg déglu mais muy wax ni ci lañ. mais malheureusement toll ci war a rester foo xam ne y a une lacune qui a existé mais tout compte fait. Mm. la caution est claire. Mm. le premier ministre Ousmane Sonko est tenu de respecter la caution. maintenant su fekkee ne moom tey gis na ne. am na lu sooxe assemblée. Hmm. y a un ministre loolu laa wax wala hmm. Kaba. Hmm. man ce que j'ai dit c'est clair y un ministre chargé des relations avec les assemblées. le premier ministre peut prendre l'initiative de leur dire écoutez mettez faites le faites le mise à jour. de de votre de votre. Euh, euh, kii bu ñu ko deful laa wax comme ñoom aussi ils peuvent prendre l'initiative donc on appelle juste à ce qu'on euh, arrête ouais. ce débat de politique boo xam ne jëmewul fenn Sénégal. waru mun a yegg ci député yi moomul Sénégal. premier ministre moomul Sénégal. président moomul Sénégal. le Sénégal appartient au Sénégalais. ñoo jël tey président Diomaye jox ko les pleins mm. mu dénk ci Ousmane loo xam ne lu am solo la. pour mu satisfaire le bien-être des Sénégalais. gisagoo kon fi ci toll lu waral coow li ba ñu yegg ci dissoudre assemblée nationale. non assemblée par contre. je dañ ko war a dissoudre. Ah. Parce que pas non il faut qu'on soit responsable. Aujourd'hui, je te l'ai dit, dama ne le Sénégal a élu un nouveau président. Avant son élection, on avait une assemblée nationale qui était qui est devenue l'opposition. Ouais. Mais kii mënul dawal football ci terrain boo xam ne ah mu ngi mel ni tey nga dem di football yi Mauritanie pour championnat d'Afrique boobu sax moo gën a grave sa dire parce que ñii ñooy voté budget bi suñ suñu nekkee de mauvaise foi su supposons président mu ne comme ni grand Kaba wax dañu war nekk am élégance républicaine ñun ñëpp ñu ànd ci ne tey ñoom mënoon nañ ko am et que le président décide donc de dire comme am nañu élégance républicaine du ma dissoudre assemblée. Hmm. waaw ñu def ko première année deuxième année après tra ñu xaar ba élection di jege ñu galgal c'est pas sûr le président pour mu politique. Hmm. pour mu liggéey. il faut que mu voter ay loi il faut mu changer le cadre juridique le cadre institutionnel mais yooyu yëpp assemblée moo koy voter du budget kese la assemblée di voter ouais. c'est extrêmement important donc ce qu'il faut faire aujourd'hui ouais. et c'est dommage même c'est dommage pour eux parce que loolu benn handicap bu ñu am la il faut le reconnaître mooy lan dañoo gañee ba pare mu mënuñu dissoudre assemblée parce que délai bi ñu ko war a jotul te xool boo maytul bu délai bi jotee assemblée bu duggee session budgétaire. kenn mënut ko dissoudre. mais tëj na session bi tey moom waaw non dama lay jox exemple. heureusement tëj na ko. mais c' pour dire que c' vraiment urgent que le président actuel le régime actuel. puisse disposer peut-être de leur majorité. Oui. maintenant sénégalais yi loolu ñoo koy décider. ñoo koy décider bu ñu ko dissoudre. mën nañu am majorité. comme mën nañu bañ am majorité parce que. nous les politiques ñëppay dem élection ku nekk da ngay wuti je me rappelle que Jacques Chirac Jacques Chirac l'avait fait mhm. il l'a fait à ses dépens il a exercé deux ans après il dissout l'Assemblée et il avait même la majorité mais il l'a fait il n'a pas eu la majorité ouais. et c'est là où il a fait la cohabitation avec monsieur Jospin mais tout ça c'est de la politique ouais. c'est l'esprit des gens ouverts. La politique elle est noble. Hmm. C'est c'est il faut qu'on soit plus gentleman nekk ci nekk ci ci ci ci ay accord même suñu d'accord nekk ci ay accord ak ay principe pour xool que l'intérêt du Sénégal d'accord et je pense que je termine là je termine là-bas daanaka <laughs> j'appelle j'appelle le premier ministre Ousmane Sonko hmm. à vraiment prendre de la hauteur hmm. et d'essayer de voir tous les Sénégalais qui ont envie de de contribuer au développement de ce pays. Oui. nous tendre la main il des forces progressistes partout dans l'opposition. D'accord. dans oui. maintenant les gens radicaux ils ne veulent pas. ils veulent pas ils pourront eux assumer. très rapidement waaw daa am benn baat bu mu wax bu bu ma neex muy principe. waaw je crois que yëf yi mën na changer nit yi di changer àdduna di changer mais principe du changer. je crois que pendant des années lu ñu fi doon jooy mooy suñu constitution bi ñu jàppee comme cahier brouillon comme cahier brouillon. Hmm. rawatina Ismaïla Madior Fall bi nga xam ni bokk na si ñi nga xam ni dañ ko nawoon ba ñu tàggat parce que bu ñu demoon ci amphithéâtre yi duñ bëgg sax suñu morom nooy parce que dañu jàppoon ni kii li muy wax ni suy wax ci droit constitutionnel sa xol day sedd yàlla bu mu lay tojal ay état fédéral ah mais après. mooy loolu jarul mbay eggale <laughs> bi fi Macky Sall toogee yow nga toog fi ma toog fi ñu toog ci plateau yi mu jël élection yi aj ko changer le calendrier électoral jël constitution bi lem ko teg na kon buñ bàyyi ba tey ñuy wax problème constitution man jour bu Ousmane Sonko defee lu dëppoo la constitution man dinaa taxaw ne ko li nga def dëppoo la constitution tout à l'heure bi nga ne Ousmane Sonko ne day def déclaration de politique générale en dehors de l' nationale ma ne la loolu waxu politique la. bu ko defee feneen nekkul déclaration de politique générale. du dëgg. Hmm. waaye wax ci lu muy bëri bëri ak liñ ciy wëndeel yëpp lan moo ci responsabilité bu fekkee ni réglement intérieur bi dëppoowul. d' ak li constitution bi digle. lan la ci mën ak lu mu ci def. Hmm. kan moo koy modifier lu dul ay député la. qu' est ce qui empêche aux bu fekkee bëgg nañ moom mu ñëw lan moo leen empêché ñoom am nañ initiative parlementaire pour modifier le règlement intérieur ensuite oui. c'est qui qui endosse la responsabilité de ce manquement qui c'est Macky Sall qui avait dissous le poste de premier ministre les députés dindi li nga xamante ni moo tënkoon premier ministre bi xam la mooy wax ji moo fi am coow li dañu dem ci ay élection présidentielle président bi ñëw constitution may na ko mu tas mais pour mu tas def na ko ci condition bii. coow li jaru ko. bu eggee foofu. bu ko tasee léegi ku nekk di xam yow la ngay peese ak euh, looy représenté sénégalais ñooy àtte mais pour l'instant statu quo boobu ñu ñu bëgg a duggal mm-hmm. kàmb googu ñu ñu bëgg a duggal mm. le pays ne mérite pas d'accord le pays ne mérite pas man du fi toog naa la je suis Pastef wala mm-hmm. Mm-hmm. parce que sama café APR jënd ko Pastef suukaru ko li mooy réew mi urgence yi ngay wax noonu école di war a ubbi mënd mi war a ñëw ah ñu war a nekk ci yeneen jafe arrêtez ouais, toutes sortes de choses je pense que bien sûr bien sûr. mais du tee aussi ñu taxaw ci oui Lamine. mooy kon dissolution oui Macky Sall daal moo fi defoon lii ñoom ñoombe li fi am nii mag Sall moo ko defoon parce que moo dindi poste premier bi indi règlement léegi on vous a entendu les gars on vous a entendu maa ngi fii Lamine oui yegg ci dissoudre assemblée nationale ci configuration bi waaw dafa am benn affaire bi nga xam ne ñaari affaire bi nga xam ne moom moo ñu gaañ un monsieur qui s'appelle Macky Sall moom dafa nekk pléwu Sénégal